takkatoo nañ ba enoo fii néeg takkat ngir takkatoo enoo néeg buñ xadd fii ba eh, muy néeg seng ba kër ñaar ndaa moom mag rek ko muuru rek ko mën a def mag mag ma fayke woon démb moo mën a ndax ndaa waaye gone mënut a ndax ndaa nga takk jabar joo xam ne jii faale wu sa ndey faale wu sa baay nga tabax sa kër ba mel ni fanaan mu yóotu caabi ja ne ko karaj tëj ndey du baa baay du jarbaa du dugg rakk du dugg jabaate kunda biñ fa ñëwee di ko sanc maasaalum jabaate moo nekkoon borom kër gu mag gi bi nga xamee ne ñu ngi li nawet bi jot na ñax mi sax na bokk xalale yàlla la nañ de jàppante di xiinaxante jàmma dimbalante bi yëpp ci xol joge laay jógee nañ delloo sëy si muuri aada yi naan def di ngoonaar di wéyal ngoonaar bi lu bari la ñuy wéyal borom néegi sey fokk borom jàng ko nit ki soo dëkkeek moom muy sa doom wax dëgg yàlla da def ci moom lu bari waaye nag dafa am bés boo xam ne bu jotee bokk yi ñoo lay jàppale lu tax ñu daje mooy waxtaanee mbiri dëkk bi cosaan léeg jaaxle yi fi nekk ak ak niñ doon dundee bu jëkk nañ sàkku jàmm nañ sàkku jàmm nañ sàkku jàmm wallaahi buñ sàkkuwut jàmm lépp lu ñu am nañ ko ñàkk. lel dafa am woy yoo xam ne buñ ko doon woy rek nga xam woy bi lu mu tekki ñu jox la ay pochine yoo xam ne boo ñëwee ci léegi bu ma yónnee ci kii ci maadi léegi su ma àggee ci néegam am na nu may fekkee dallam yi moo may wax ne bismillah wala wal buntu. ma jam nga fanaan jama rek awa jama nga fanaan jama rek kay kon nag jam ngeen fanaan mereka so moo ne indi lekk yi gën ci lekk waaye nag amul ci lekk wér gu yaram ci xam-xam la flavors ak yeneen ak yeneen yu bari yoo leen a mën a jàng ci programme bi loo xam ne rek war ngeen koo xam ci seen suba te xam ngeen ne wér gu yaram mooy jëmale réew kanam ahan kay kon nag toppale leen ci jàmm ngeen fanaan samedi ak dimanche fukki waxtu ci suba isama woto nak alsama ñimmu programme kutolti ngam min kere kerale nan ndey kuma jada ken ya bije ku jama jama fanan bije tabir di mal bije kacha bije ni ko tabiro ne woka mo jama bal kontan le woto ñimmu ku kutolti mi yalla nako alsama abinala GRTS le sibiti wo sibiti anin dimaso talantang somanda jama ngeen fanan alsama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 ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه إلى خلقه وحبيبه نشهد أنه بلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد أيها المستمعون مستمعي إذاعة والتلفزيون في غامبيا المعروفة بجي ار تي اس أهلا وسهلا ومرحبا معكم أخوكم في الله في البرنامج الأمين يرفني آه إن شاء الله تعالى نبدأ معكم آه درسنا وهو درس التجويد المعروف ورتل القرآن ترتيلا بعد مسلمولو بعد مسلم لموير لالو غامبيا غامبيا بانتالا مومو كانيم بروغرامو لموي mba fulal be al nimbara na ten to ko la tabaraka wa ta'ala man saba man sakallanke anin ka salala annabi umma min ka takila muhammad sallallahu alaihi wasallam ana la buntonkol min ka dimba yaluti ana la sahibu lu min ka la tañolu ti anin momo bulata wolnoma ñin eh, sila kendo kan eh, fo jannin alabala banko ketala lumin o kolatol badi muslimolu ala talla mumin kanda wala mu kanda jonti ala talla mumin filindi wala fana mu filindir jonti woton be ala danila tabaraka wa taala asin nabatul mutanye mbaal sewon la sunkaru horomarim fana la eh, sunkaro mi yalon ko man satalla ka junubol kafarje je aka eh, modol kamforoya ka bo jahannama dunto almalen be bula ala kamforoya jono kono min yalon ko e tankata jahannamula al be alqur'an la karol to tenti min kata sun kar kar horma hormari mbuñaari wuti mbaadi wunu han kabi nal eh, natale bi fana al nal baadi mala min kata ala min yoro fanneti natale na lamur la bato na eh, karammum baato min ye lon ko aɓe londin banko kan moɓe e kew min kata grts ti radio nin television oto to mbaadi wunu e eh, kali alon lon ñamin e wala mu nka stat harfol lella harfo harf aliyalon ne nkaje scrinoto e, eh, harfo ñin ñiñaje scrinoto doron ñiŋam bulo codi harfo ñinna alsalon ko mbewo harfo ñin mbewola fola bari inchallahu taala janni mbewo fola mbe harfol be fola la at once wo kola e, eh, ŋana lota damin ŋana jeta ŋafo mbadi munu ñal ben fe doron ñaal ben fe alsa a commencé a ka ji ben fe alsa a commencé ka alla skrimo jibe ñi harfolu ñante e kilin kilin folale ali ye lon ñi harfolu ñun e ka fo ñaadi le oton mbaadi un sayin fe on fe na kala doron fo ngani harful be fo sinya ba kilin wo kola ali ko ñiŋ harfolu e ñanta funtila dinkiraañimal to kan kono ñaali wolon o redi sinanan bi ñanta harfol min ya lon ko ñanta wolle taala ŋe fo sina wolta ŋa kiliŋ kiliŋ fo mbaadi wunu ñaali ben fe doron ala jiibe skrimo to harfol ñunu nkana wolle ta ŋa faale tentiŋ mbaa be fola siña kiliŋ alalla tabla jiibe mi ye lon ko harfol be be saferiŋ je mbaadi wunu ñun ne mu alhurufu lhijaiyati arabol la harfol ibe e, talarin tentin ne ñin harfol ñie foñano doron ibe arqurano fonolale ibajela ko aɓe isila baake folo folo alif walam alif kolma ken sawti nkowo alifo ñin ñinga hamsa la kan mbafala ko a i siroɓe duma u ba bi bu ta ti tu sa si su ja ji ju ha hi hu kha khi khu da đi du za vi, zu ra ri ru Zá, zi, zu.